mbind mu sell mi nee na mbind mu sell mi nee na ci rom saar juróom benn aaya ñaar fukk ak ñett ndaxte peyu bàkkaar mooy dee rom saar ñett aaya ñaar fukk ak ñett ñépp a bàkkaar ba jotetuñu ndamu yàlla benn timote saar ñaar aaya juróom ak aaya juróom ndaxte jenn yàlla képp moo am ak benn ràmmkat képp diggante yàlla ak nit ñi di nit ki kirist yeesu mi joxe bakkanam ngir jot ñépp rom saar fukk aaya juróom-ñeent ndaxte soo waxe ak sa gémmiñ ne yeesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc